le conseil constitutionnel ne fait jamais la lecture euh, des, des des lois constitutionnelles bu amee nag ce serait une première et, ce, et, et on va tomber aussi euh, dans une autre forme de de de, de crise euh, institutionnelle mais euh, nan lañ mën a def ba nga xam ne le Sénégal va va va sortir la la la la tête de de la, de l'eau yan mécanisme lañ mën a teg. waaw Eh, dafa am lu am solo loo wax le conseil constitutionnel a contrôlé une loi constitu un projet de loi constitutionnelle depuis 2016 il a ouvert la fenêtre ça veut dire que en réalité dafa ralentir aujourd'hui sa jurisprudence qui était arrimée sur la jurisprudence Schengen et Maastricht de 92 du conseil constitutionnel français le conseil constitutionnel a toujours rappelé même pour les lois constitutionnelles dafa naan une loi constitutionnelle c'est le pouvoir constituant n'est-ce pas qui s'élève mais dafay wax ni à chaque fois bu fekkee ni dafa nara a laal les limitations qui concernent tout simplement en fait qui sont des limitations hors de portée à son intervention foofu mënu nekk et fii foofu la ñu nekk moo tax gisuma lu koy tere mu contrôler ko moo tax non seulement dama leen c'est un acte inexistant mais mieux encore le conseil constitutionnel fait face à de nouvelles clauses d'éternité te clause d'éternité yooyu moom moo ko dicté en en en 2016 moom moo ni fii Sénégal kenn mënu fi yokk man mandat kenn mënu ko wàññi mu ne coutume sax constitutionnelle la de 91 à maintenant. mais ma interpellé la ma la sur l'article 3 de la constitution du du du du Sénégal. oui euh, par rapport à la possibilité que le conseil constitutionnel. def une lecture d'une loi constitutionnelle. l'article 3 dit la souveraineté nationale appartient au, peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou, ou par, par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect, il est toujours universel, égal et secret. Tous les nationaux sénégalais des ah. deux sexes âgés de 18 ans accomplis jouissant de leurs droits ah, civils et politiques sont électeurs dans les conditions euh, déterminées par la loi tu vois man yoruma téléphone de yow yaa yor téléphone bi <laughs> parce que moom lay jàngale souveraineté la wax le juge constitutionnel est un pouvoir constitué le président de la République est un pouvoir constitué l'Assemblée nationale est un pouvoir constitué mën nañu leen tudd sax les pouvoirs institués mais c'est kiff kiff mais ñu ñëpp en réalité dañu leen jox compétence am fu ñu leen yamloo et fi ñu leen loo constitution bi moo koy déterminer ku déterminer loolu c'est le souverain c'est le peuple ku ne mu jox la cër mu ne conseil constitutionnel yow rek laa sàmm loo ne bu ñu bëggee laal clause d'éternité da ngay intervenir parce que su ñu ko bàyyee mu jàll mooy suba parce que ci clause d'éternité yi bi fi njëkkoon a nekk de à 2016 boo doon la forme républicaine kenn nekk royaume mënuñu doon monarchie bu mënee jàll mooy suba assemblée nationale mën nañu ñëw ñu initier une ñu ne bon président Macky Sall bu demee Marème Faye Sall moo koy remplacer wala ñu ne président Macky Sall bu demee suba Amadou Sall koy remplacer loolu moo tax clause d'éternité yi bu ñu munee laal rek la durée du mandat war nañu mën a laal la forme républicaine fa la nekk. attention est-ce que la non may ma yeggale rek xam maanaam man sànq dama doon. on a touché à la durée du mandat. non non non non c'est pas une question de on a touché la durée vous savez la durée du mandat elle est dans la clause d'éternité c'est-à-dire c'est l'article 27 qui fixe la durée du mandat mhm. c'est 5 ans au-delà du 2 avril 2024 Macky Sall bu fa tegee une seconde yokk nañ mandat mhm. donc on a touché à la durée du mandat c'est-à-dire mënoo laal article 31 te doo laal article 103. Macky bu non loolu. non non non en tout cas Macky Sall. bu demee le 2 avril on constate non bàyyil ma yeggale la vacance du pouvoir et on organise des élections. non c'est ça cest dire c'est-à-dire <laughs> rek man ma expliquer. le président Macky Sall à partir du avril mënatu la nekk président du Sénégal constitution bi nag suppléance la teg le régime sénégalais a mis en place la suppléance à la place de l'intérim l'intérim est beaucoup plus long. que la suppléance moo tax trois mois la au plus deux deux mois au moins. donc boobu soo xoolee donc c' est l' da ngay xam ni la constitution du Sénégal donc dafa jëmmal askanu Sénégal même souverain bi mënut a maye suppléance bu ëpp quatre-vingt-dix jours. parce que ki fi toog sax bu président décédé wala bu démissionné wala bu empêché we dañ la ñetti weer rek lañ la may au maximum pour nga mën fi toog organiser ay élection dem sa yoon loolu moo tax ne le pouvoir appartient au peuple beneen bi nag ma ñëw. xam nga sànq ba tey ñu ngi wax fii di wax Pierre <laughs> ta démonstration j'ai très bien aimé quand même ay surtout avec le PDS ils sont dans la logique mais am na bu ko dàq. xam nga tey jii su neexoon Pastef ñu ne élection du am parce que DG waratu ko organiser ak ministre bi conseil constitutionnel moo bind considérant 16 ni DGE ak caisse de dépôt et de consignation li ñu doon def Ousmane Sonko lépp ay manœuvre la considérant mais un parti comme PASTEF quelqu'un comme Ousmane Sonko il s'est élevé mais loolu rien n'est plus beau et aujourd'hui certains pensent que c'est l'homme politique africain n'est-ce pas le plus populaire je dis bien et pourtant il a dit que je mets en avant un projet bàyyi keneen mu jiitu pour n'est-ce pas respecter l'image du Sénégal et que ñu continuer parce que def nañ fi onze élections présidentielles mosuñu ci daax c'est en soi emblématique et c'est une leçon de philosophie politique beneen bi ci topp mooy. non non non dama la wax ne la. waa bàyyi ma yeggale rek xam nga ma. non yow Saliou Pa Amadou Amadou loolu nga doon loolu nga doon kaas léegi ci Moussa ah, man. xaw man sànq ba tey dama toog dama toog dama toog man sànq ba tey. j'apprécie l'élégance de Moussa. <laughs> quand on l'interpelle sax da nga. voilà non je parle de lui. Ah. non je perturbe pas. waaw waaw merci beaucoup. c'est non non le problème c'est su fekkoon Pastef dafa ne. DG li mu def conseil constitutionnel dàq na ko. Pastef sax su la neexoon tey jii nii ñoom ñu initier résolution boo xam ne dañ naan ñii ay ordre lañu jël ñun dañuy def résolution de mise en accusation contre les ministres là. mais article 101. Mayoro bàyyi rek bàyyi leen moom rek parce que tamit yéen aussi ko Mayoro maintenant dictature ba nga laaj dictature ba nga laaj. Mayoro s'il man sax ma ne dama toog déglu c'était tellement emblématique ku ne naa la quand même donc comme ça nga bàyyi ma a sinon rek je vais rater ma démonstration donc c'est tellement emblématique ñoom Pastef déggoo leen ñu ne la sax dañuy mettre en accusation un ministre te pourtant deux ministres de l'intérieur successifs ñoo joxe ñoo joxe loolu conseil constitutionnel wax na ko moo tax bi muy invalider Ousmane Sonko invalider wu ko sax ci loolu daf ne ko loolu loolu ñu la tegool nekkul donc Ousmane Sonko ko am si ni ñu ko invalider ci mooy l'affaire Mame Mbaye Niang léegi tey Pastef su jëloon résolution ñun ñun élection bi du am parce que ki ko war a saytu mooy DGE parce que même jour élection bi DGE mun na def sax des de départ le 24 février 2019 deux messages départ de la part de la DGE vers midi élection concernant des bureaux de vote c'est extraordinaire le parti Pastef n'a rien dit on va respecter ce qui a été dit parce que les erreurs du Conseil constitutionnel comme je l'ai dit ou bien les erreurs de l'administration en l'espèce s'imposent à nous c'est ce qu'ils ont dit c'est une leçon de philosophie politique mhm. et c'est laa bëgg ñu dem nag bàyyi ma yeggale beneen bi si topp nag mooy Amadou Mamadou Seck ancien président de l'Assemblée nationale institution la jiite woon ñu jiñ ko moom mu ne damay jël congé de l'institution dem ñu fii Sénégal mu dem ñu seetal ko mu dellu si. non il était ministre. ministre pardon ministre pardon merci beaucoup. après la doon très bien après la doon président de l'Assemblée mais il était dans une institution parce que le gouvernement est une institution article 6 de la constitution bi ñu paree si loolu xam nga loolu tey jii nii le premier ministre keroog ñu ngi laam-laamee ndax décret bi génn na wala génnul xam nga. le contreseing du premier ministre xam nga lan lay tekki suñu système xam nga le président de la république politiquement il est irresponsable quand le premier ministre endosse sa signature il engage sa responsabilité sur une situation boo xamante ni moom il est à la fois donc parmi les acteurs yi nga xamante ne ñoom la ñu donc joxoñ ba mbir mi am en plus de cela il fait partie des acteurs yi nga xamante ne l'acte que le président a pris leur fait grief parce que il est candidat sa mm-hmm. porte atteinte à ses droits en qualité de candidat mu contresigné ko ça veut dire que mu ngi engagé sa responsabilité politique et bu subaa bu amoon resp bu amoon responsabilité pénal au trahison day engagé sa responsabilité mu nangu ko le premier ministre tey xam na ni assemblée nationale amul benn prérogative pour jël une loi constitutionnelle pour ne day arrêter le processus le premier ministre accepté loolu yëpp toog place am président de la République ne ko yow renouveler naa la sama confiance moom mu wax ko loyauté ce même premier ministre nga xamante ne ses rapports yii la avec le président de la République il est politiquement responsable devant le président de la République ñu désavoué ko à l'Assemblée nationale par qui une bonne partie de sa majorité parce que Assemblée nationale même président de la République su perdee quatre-vingt-dix-neuf députés il n'a plus la prise. nan lañ ko désavoué à l'Assemblée nationale. le vote c'est cent vingt voix. may ma noonu cent vingt contre le premier ministre on a initié une procédure wax des soupçons de corruption contre le le premier ministre. le président de la République su bëggul woon nee naa la procédure bi continuer du continuer. ñoom ñoo majoritaire dans le bureau de l'Assemblée nationale am seen candidat ñoom ñu ñëw ñoom ñoom ñëw mën a voter pour mu mën a jàll ñoom suñu nekk su leen neexoon ñoom ñooy la majorité de blocage mais non seulement parce que xam nga les trois cinquième ça combien quatre-vingt-dix-neuf ñoom mais ils ont eu sur cette question cent vingt voix c'est un désaveu à l'égard du premier ministre et donc ça pose problème un problème. mais est-ce que le premier ministre s'est engagé d'une quelconque manière dans cette affaire-là. non xam nga. la majorité les députés de la majorité dañ ne dañoo bëgg ñu setal seen candidat moo tax ñu voté la commission d'enquête parlementaire. c'est des en quoi est-ce que le premier ministre. est concerné mais le premier ministre il est affaibli. et le moo tax ma ne la problème bi c'est un problème comme ni ko Moussa waxee foofu la d'accord soo gisee ce sont des contradictions internes entre acteurs ou. donc coalition ou parti politique ñu bëgg ko transposer léegi nag loolu day indi leneen xam nga sànq fii moom dañuy wax les droits du PDS les droits de tout un chacun mais droit bi gën a kawee tey moom la ñu annihilé. lequel les droits du peuple sénégalais kooku moom moom processus bi moo tax ma ne la moo tax article 3 yow tax ma ko liiral maa kontaan lan lañ la wax nul corps nul individu nulle section ne peut s'attribuer de la souveraineté du peuple <laughs> kon kenn mënul arrêter élection bi processus bi bu buñ la tooñee ak kuñ tooñ commission d'enquête parlementaire bi d'accord et c'est emblématique mm -hmm. mais c'est politique day continuer mm -hmm. président de la république d'accord su ko neexee sax mu def message wax ni lii day continuer moo tax ñu jëmmal conseil constitutionnel ni ko bu amul décès candidat wala président de la république démissionné wala empêché wala président de la république décédé dañuy continuer le processus donc soo gisee cette question là nga gis li ma la jox sur les éléments par rapport au aux aspects précis da nga xam ne tey la souveraineté du peuple elle est confisquée loolu d'ailleurs moo indi image du Sénégal tey regardez bien la réaction Pape yaa ngi wax léegi en fait donc mais économiquement ça va être désastreux pour nous xam nga la moo tax Sénégal ce n'est pas n'importe quel pays ñun dañu tuddee woon les pays like mine gis nga cour pénal international bi ñu koy teg Sénégal moo jiite les pays like mind ñu ngi ko defoon FAO. FAO gis nga Afrique Sénégal moom la ñu tuddee l' état pilote. mooy piloté toutes les de la démocratie mm. léegi Sénégal boobu noonu ñi ko jiite dañu leen ay putschistes lañ te ñi koy wax c' fonde fondé parce que en droit constitutionnel dañuy wax les coups d' état civil et les coups d' état militaires et ça ça s'apparente à un coup d' civil. parce que tout simplement mais bien sûr en fait li may wax c'est normal parce que le souverain moom dañ ko jëmmal et cette loi constitutionnelle ñu jël c'est-à-dire que parlement bi moo tax bi ma commencé dama ne la c'est inexistant parce que taxul ci benn prérogative am c'est comme quelque chose qui est nul et non avenu léegi nag beneen bi ci topp mooy li tax ma naan processus dafa continuer parce que xam nga li ñuy wax acteurs yi li ñuy def lépp li ñu bëgg a wax saan même waxtaan bi loolu c'est le consensus politique mais ce consensus laa dafa am ñu yéeg ci kaw moom la ñu tuddee le consensus démocratique ce consensus démocratique nag mooy li Sénégalais yi tënk def ko seen constitution moo tax sax constitution vient du mot constituer mettre ensemble li ñu bokk le processus électoral là moo tax ma ne dafa waroon a continuer te dafay continuer loolu laa jàpp. mais du continuer maintenant foofu laay ñëw. ma naan ma yoroo foofu laay ñëw maintenant may mun a maintenant bu continuer wul. Hmm. boobu noonu dañuy dugg nag maintenant ci situation de crise xam nga ni ñi dañ doon wax crise lañ am amuñu woon crise tey bi président Macky Sall defee lii ci lañ dugg crise xam nga lu tax ñu dugg crise parce que président Macky Sall moom nee na ñu ngi koy yokkal mandat am ba ay kii ak kii mais le 2 avril 2024 président Macky Sall mënatul a jiite benn sénégalais mënatul a toog ci bopp réew mi. ce sont les élus du peuple qui ont décidé. d'une prorogation ponctuelle. et conjoncturelle du mandat du président de la République en modifiant l'article 31. Ils disent le président de la République poursuit son mandat jusqu'à la passation de service avec son l'installation de son successeur. dama ne la dama ne la dama ne ñooñu li ñu def noonu. Hmm. taxul fenn ce sont des représentants du peuple. non dama ne taxul fenn une constitution. du ñu ko jaxat jaxate gis nga les élus du peuple là li ñu def noonu. taxul fenn parce que mënta ne. xam nga lan moo tax c'est du faux. c'est quoi xam nga lan la dama ni la ils ont fait une fraude à la constitution loolu la ñu tuddee en droit c'est une fraude à la constitution mënta ne dama ni la bu ñu bàyyee ñu démanteler les clauses d'éternité mooy suba assemblée nationale mën na ni les élus du peuple mën nañu nii le président Macky Sall buy dem le 2 avril ah soxnaam mën na faa toog buy dem le 2 avril. maanaam jarbaatam mën na fa toog. parce que forme républicaine de l'État fa la ne mooy première clause d'éternité ñu teg ci la durée du mandat ñu teg ci le nombre de renouvellement des mandats ak le mode d'élection boo ci laal rek mooy mën nga laal ba ca des donc mooy li assemblée nationale def moo tax conseil constitutionnel dafa war a contrôler loi bi la preuve may mun a lan moo tax président de la république ba ba tey muy recevoir le président du conseil constitutionnel parce que xam na li koy xaar ci loi te le président de la république li mu def nii li ko ci mën a fekk dafa bëri parce que moom su xoolee ni assemblée nationale xam nga tey bu doon proposition de loi la ñu indi ni président yow dañu lay destituer day bañ wala ñu ne ko yow léegi say sañ-sañ dañ koy jël yow président de la république yow léegi assemblée nationale yow moo lay dicté loo war a def day bañ parce que danaa leen les articles 42 à 52 man lañ ko jox gis nga moo tax assemblée nationale dafa am lu mu mën ak lu mu mënal su ñu bàyyee nag lii dem nag gis nga les seconde guerre mondiale assemblée nationale yee ko et c'était la même chose Adolf Hitler est venu démocratiquement au pouvoir assemblée nationale ba dem di def di def di def ba def lu mu warul def nga dem Autriche ki nga xam ni moo créé le modèle européen de justice constitutionnelle Hans Gensel l'un des juristes les plus célèbres mu ne loi yi ngeen jël te moom lañ def le premier président de la cour suprême de la cour constitutionnelle mu ne man damay autosaisir l'un des plus grands constitutionnalistes ba jël ko déchoir ko de sa chaire d'enseignement et bind la démocratie sa nature et sa valeur les démocraties daanu seconde guerre mondiale ñëw avec Adolf Hitler li xew Sénégal moo tax ma ne nit ñi di ni c'est un coup d'état civil parce qu'on a arrêté un processus sur la base d'éléments loo xam ni tous les pouvoirs publics constitutionnels fonctionnent maintenant la le conseil constitutionnel peut Merci. délibérer même avec Merci. quatre membres le juge Kéba Mbaye conseil constitutionnel créé nañ ko les premières décisions à 5 décisions Kéba Mbaye ko fekkoon mu nekk en voyage bokk ci te président kon tey jii nii le processus électoral dafa war a continuer et que la date du 25 février doit merci être la date pour l'élection et le 2 avril 2024 merci. le mandat du président juste de la République donc arrive euh, à son